commencé xam ci xew mu àgg ci moom suñ toll bi yàlla def na ku ko xam xam ne ci boromam ba lé ci sunu maam ju tedd li gën a ne àdduna mi ngi ko ne li génn àdduna mu ne alhamdulilahi rabbil alamin Cheikh Mouhamadou Mountakha ku ko xam ku ne xam ne àgg na ci maqaam moomu ci diggam boromam lu mbir rëy rëy rek koy delloowaat ci yàlla ndax loolu suñu borom moo ko santaane ci alxuraan wax ne wala nabluwannakum bi shay'in min al xawf kon ñu xam ne am nattu la nattu nag mooy loo xam ne day gis ci bakkan lu maa waaye yàlla ñu ko wàcce te xam ne tax na ko moo xam la tax na wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarati wa bashiri sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun mu baax mi fi bàyyi ko di Serigne Atou Diagne di suñu mbokkum teel bi di joo xam ne listaan yëpp ko ñàkk rawatina la ñu yaakaar Serigne Touba ndax ak njàmbaaram ak pëstéefu ma taxawaay kon rasulullahi sallallahu alayhi wa ba mu fi bàyyi ko am na ci saxaaba yi ñu jaaxle woon ba àgg ci di yëkkati jees yi di wax ne ku wax ne yonent bi bàyyi ko rek ñu dagg sa bopp duñ fi waaye ku xalaat ci loolu rek xool ci jumaa ju tedd ji ci Sëriñ Tuubaa xam ne kon adduna kenn desu kenn dëkku fi ak waaye nag li am solo mooy nga jaar bàyyi fi loo xam ne ba bii ci kenn du fat kenn du fat falawlaa kaana min qablikum uluu baqiyyatin yanhawna anil fahshaa'i fil ardi nañ xam ne li am solo rek mooy bokk ci paquetu sax te nii rek may soog a jéggi daal li tax ñu doon ko jéggi daal rek mooy bokk ñëpp xam ne mooy ba mu jigéen léegi ñu ne ci biir gàddaay ak te gàddaay dañuy wax rek gàddaay delloo moom ba mu gàddaay daa dem di si loolu jeex mos ko yokkat mësta dellu ginnaaw mësta denc ñi déglu waxtaan bi man xamoon naa loolu ci moom waaye dégg naa ñu bari ñu ne ma teg nañ ay waxtaan yu yàgg ci jamono Cheikh Abdoul Ahad ba nëgë waaye mënoo xàmmee waxi démb ak waxi tey loolu ak doogal ak ak positif di borom ndimbal itam nag ndax ndimbal la mooy la solo ndax ñun ñëpp suñ jiite. ak suñ bëgg-bëgg mooy yaakaar Sëriñ Tuubaa ak doy loo ko xeeti jeexit Sëriñ Tuubaa jaayit ak Sëriñ Tuubaa waaye nag xam na loo xam ni ndimbal lay doon moom nag dafa am ndimbal tawfeex ndimbal la rek mi ngi tàmbalee ci Cheikh Abdoul moo ko dimbali gindi ko yar ko tàggal ko moom yéen ngeen ànd ko ba ubbi boppam ba mu xam fi jëm ak fi muy teg tàgg ba loola leer ci gërëmoon ko fa yàlla bind ko ci wax ndax ku say mbokk bàyyi adduna adduna soxla la nga bàyyi lépp jamono soxla nga bàyyi lépp gàddaay lépp ci Sëriñ Tuubaa loolu nag Sëriñ Tuubaa fay na ko ci lu bare bare ndax ku fi nekkal Serigne Touba rek laq na sa gërëm Cheikh Abdoul Ahad nii ma doon wax nga xam ne yàlla def ne seen daara ji ci nekkam la sosoo woon mu joxewoon tur yi mu joxewoon ndigal yi ci nekkam seeroo la ko seereeloon na ko ne ko al muridu sadiq leetar bu mu bindoon sëñ bu Seydou Mane ci ay yitte yu mu ko doon wax ci moom ne ko al muridu kon loolu doon na sëkk ndax loolu sàkku suñ dund gépp kon moom sëriñ Tuubaa Cheikh Abdoul Ahad te ku ko xam xam ne Cheikh Abdoul Ahad dadaa wax naan palaa ak positif dañoo nuroo waaye bokkut palaa ak positif Cheikh Abdoul Ahad ku xàmme woon ak positif la kenn mësu ko mën a nax ci ci ci palaa waaye moom dem na ba seere ko positif kon loolu suñ seere si amatu ci solo laam solo mooy seere gu ko doom sëriñ Tuubaa seere ginnaawam itam Cheikh Abdoul Ahad moo leen digaloon ni leen fu Serigne Touba xëyee fu ne na ngeen fa gonte fu mu gonte foo na ngeen fa xëyee na ko ko Cheikh Abdoul Ahad Mbacke waxe woon ñoom de topp nañ ko topp ngeen ko ba gisul leen ci dara ndax damay wax ne képp ku leen di sikkal da caa bàyyiwul xel ndax ki fi nekkee Serigne Touba kat yéeneen koy taxaw taxawaay boo xam ne kenn mënu ko weesu wala kenn fekku leen ci loolu la ndimbal la. ndax daayira yi bari na fi waaye yéen seen yitte yëpp mooy ki fi nekk Sëriñ Tuubaa boolewu leen ko dara doo leen ko jaawale dara lool nag mooy ndax moo leen taxaw nu jóg kon nag yoon woowee nga xam ne ci lañ leen tegoon taw musu musu musu ko wàcc yéen tamit dañ Cheikh Abdou Khadir li muy gàtt gàtt fukki weer ak benn la fi am waaye ko xam ne ñëw ba cëg dari ñëw siyaare si lan lu bokk siyaare yi ngeen ko def siyaare leen seen positif ak seen digg Cheikh Abdou Khadir itam noonu la ko ko daa seere la Serigne Saliou Mbacké Serigne Saliou waxtu ne ma ko daa fàttali da ko daa wax ne ko isa ay qasadka xurubul ada fanab bi ila amin summa mooy saa su la yitta dabee rek noonu la ko Serigne Saliou daa fu ko yitta dabee rek wala loo xam ne nee na cim xelam wala mu am ca lu mu bëgg tam jaaxal ko nee na bu ma la ko waxee rek la ma ci bëgg dinaa ko ci am mujj na dem ba daaray boppam bi sax lépp ci liggéey bi mu dénk ko wala lu muy dénkaane ngir fonk gum ko fonk ak doyloo gum ko doyloo ba ci kër ga ko suñ saali doon jëndoo ci France yooyu yëpp xam ngeen ne manees na ne bokkutoon ci liggéeyam ndax moom kon ab liggéeyam sarse wu na ba fees sarse wu na bu fees ba dara day mel ne xajalaat ci dara sax mënutoo nekk waaye lu mu mu jël lu agsi rek sëñ bi dénk ko ndax loolu ne la ko waral mooy lu mu ko dénk dana ñoŋ te dana sàmm te lam ci bëgg dana ko ci am kon nag yéen na ngeen xam ne dangeen di àlli Sëriñ Tuubaa ginnaaw Sëriñ Saliou itam Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ñëw dégg ngeen la mu ko seere loon la mu waxoon Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ba mu koy seere bu géttu gay ne newoon fee nga jàppaloo ci benn danaa dem jëli ko foofu la positif ak doogu yam te waxu ko rek yem ci waaye da koo jëf man mi dund ak moom diggante fukki atal ñett yii ci xilaaf ak Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ci xilaaf ak Cheikh Sidi Moukhtar Cheikh Sidi Moukhtar daan ko seeral di wax ne yée ñoom de li ma gën a yéem ci seen biir mooy def lu baax sax yomb na waaye sax giñ ci sax ak way giñ ci way nga xam dara mënu koo soppi dara mënu leen wëlbateel jaxal na kii fi nekkal sëñ Tuubaa nag di du mu Mountakha seen digg moom mbirum sëñ Tuubaa la ndax moom li muy wax nee na dangeen a jug rek xelam dal ci yéen mu am yaqin ci yéen ànd ak yéen ba na te dara mosu ko soppi waxtu nekk yéen a moom booba nekkagul Cheikh Mouhamadou Bachir nekkagul Sëriñ Tuubaa kon seen digg moom lu démb tey la du tey démb mm-hmm. te waxtu nekk itam. lépp lu ko itteel wala lépp loo xam ñor na ko danaan bu ma ko waxee aatoo la ma ci bëgg dinaa ko ci am loolu muy suñu kon moom suñu aatu day borom tawféex kon yàlla suñu borom dolli ay leeram rek te wóor na ma ne itam fa nekk moo fi gënal fii ndax jël na léppam jox ko Sëriñ Tuubaa ba fàtte ak njabootam fàtte léppam xam ne alal la Sëriñ la yitteem jëpp mooy lu Serigne Touba ki fi nekkee Serigne ma sa a bëgg amatu xalaat te lii lii fëkkaati bari na ci àdduna àdduna lii fëkkaati bari na ndax ku jug jëm ci lu baax ku ne am na lu jug ngir bëgg laa gàllankoor waaye yéen yàlla dimbali na leen ba ngeen gàddaayee ñëw fii bàyyi àdduna xam ko lool ba ñu ne ci àdduna gënuñ leen ko xam ñeen xam ko niñ ko xamee walla ñeen raw leen ca waaye ngeen dëddu lépp ku leen seen xam ne murid saadix ak buy dox ku leen fekk fii itam xam ne fekk na fi taalibe Sëriñ Tuubaa dama ko daa wax suñu aatu li ma gën a yéem ci moom saa soo ma saan agsi bett ko ndax léeg-léeg may ñëw sax du ma jéglu waaye boo agsi yaa ngi ko fekk ci xasida yaa ngi ko fekk ci sànc ba yaa ngi ko fekk ci biir liggéey bi nga moom da sëriñ Abdou Lahad Mbacke doon wax ne nelaw guddi guddi ginnaaw bu Sëriñ Tuubaa ñibbi seen njaarim lañ ko xam moom loolu la doon dund xaal boobee murid yi nekkoon moom la doon dund bëgg ñëpp ne fa yàlla defal na ko ci tawfeex nag ndax tawfeex bi mu ko ci defal mooy waxuma li lii mu fi bàyyi waaye ñi jaar ca daara ji ba defaroo fi ba defar yeneen daara ba ay mbooloo defarwaat ci loolu kenn xamutu yaa ba ji fu mu toll kon moom boroom tawfeex la kon ñu koy ñaanal bu baax a baax tey koy fàttaliku di ci aw mu yëg-yëg ngir xam ne ki ñàkk ku rëy la ci yoon murit ndax ku jëloon léppam jox ko Sëriñ Tuubaa la te gisalu dara ak bëggam yëpp mooy ndamul Sëriñ ak bëggam yëpp mooy yëkkatiku yoon ak bëggam yëpp mooy nit ñi xam mooy Sëriñ Tuubaa te mosu ko ci fekk yéen yàlla dimbali na leen ba ngeen ñëwee gàddaay ba na gën kenn mësu leen dégg ci mbirum àdduna ay daje ngeen fay ñetti président ci biir réew mi kenn mësu see dégg seen xalaat wala seen postion te kenn ëpp leen xalaat ci réew mi loola ndimbal la kon yéen amu leen soxla ci àdduna Sëriñ Tuubaa rek leen tax a jóg li leen tax a jóg mooy xool ki fi nekkal Sëriñ Tuubaa bëgg-bëggam ak yitteem ak luy yëkkati yoon wi ak luy sàmm mbirum Sëriñ Tuubaa ak luy ñoŋal yoon wi kon nag li leen Cheikh mun Mountakha di tuddee. yéen soldaari yoon murit ngeen bu yëgoon am na xalaat yu rëy yu mu doon xalaat ci biir yoon bi ba mu agsi ci yéen dana ñoom ay soldaar la ñoom ñooy soldaari yoon wi loolee nag kon na ngeen xam ne am ngeen sasu rëy rëy kon sëriñ bi moom keroog bi nga xam ne sëriñ Atou bàyyi ko na fi juróom-ñetti wax ci suba la fi bëggoon a xëy ànd ko yéen bu guddi waaye ni jamono toll moo tax sax mu bàyyi ba fukki waxtoo ñaar mu door ñëw waaye juróom ba mu ko déggee amatul jàmm te nee na lam ci jublu mooy ànd ak yéen wétti leen dalal seenum xel kon na seenum xel daal bu baax a baax te ngeen jot te xam ne seen liggéey bi liggéeyu Serigne Touba la moomu leen ko Serigne Touba ko moom am ngeen ndimbal nag ndax Serigne Touba mooy tànn ka ko soob mu liggéey loolu te Cheikh Abdou Ahad Mbacké daana wax ne liggéeyal Serigne Touba la ca am solo mooy façon bi waaye na muy fexee ba mu am Serigne Touba noppi na ci kon yéen itam lii ngeen sosoon te ànd ko si yaatu taxawal ko mu agsi fii mu bàyyi ko fa tey ngeen ëpp sax tey ngeen ëpp sax kat ndax moom daa doo jàmbaar joo xam ne comme ne ci sa kanam boo bëgg sa doxee da nga ndax daa dox loo ñëpp day yemale ànd saa mu tàggu yow nag bu demee ba bàyyi ko fi bàyyi leen ginnaaw na ngeen xam ne am ngeen am ngeenu sax sas wi mooy comme ko bëggoon a jëme ci xalaatam ngeen àndoon ko moom ngeen gën góor góorgóorlu ba li Cheikh Mouhamadou Mountakha wax keroog na liggéey bi gën a yëkkati ko li gën a kawe waaye bu mu laal suuf loolu nag rafet nañ ci njort ndax dañ leen ko fàggul Serigne Touba leen ko fàggul njabootu Serigne Touba gi fi nekkoon fàggul leen ko ak agsi fii kon suñ yuusu dégg ngeen li Serigne Mountakha wax keroog ci yow loola soxlawut seen seere nee na fu ma gisee sañ aatu sama xel dem ci sëñ Yuusuf fu ma gisee sañ Yuusuf sama xel dem ci sañ aatu noonu la ko Cheikh Mahmoud Mountakha waxee noonu la deme ci ñun ñii képp ku la séen rek xelam dem ci jëmmam te it wax naa la ko démb da ànd ak moom ci biir ànd ak moom ci bitti ànd ngaa moom ci sa jëmm ànd ak moom ci sa xol ndax man man naa ci seere ndax mosoo bëgg dara lu ko gàllankoor. mosul bëgg dara loo xam ne lu yàqu ci ab loola na kon na nga xam ne ba mu lay doyloo ak di leen doyloo yéen ñii ngeen seq liggéey ndax liggéey bi yéen ko bokk yéen ñëpp li Cheikh Mamadou Mountakha wax ne njiit mënta ñàkk ndax lislaam a ko santaane ak julli ñëpp la ko list euh, la ko suñ borom sant waaye bu ñu àggee ci waxtu julli faw imaam am loolu mënta ñàkk ndegam yàlla def na nag ab daayira ku ne xam na ni baaxoo mboolooy àndandoo dajaloo tànn kenn ne kii lañ jiital ni mu demee ci yaatu ba agsi ci yow mi Cheikh Mouhamadou Mountakha joxañal la boppam kon loolu doonu la ndigalu suñ tubaab waaye ñu xetal na ndax xam nañ la bu baax baax ndax xam nañ sa dëggu xam sa pëseef xam sa engagement sa digg moom ndax lu mës a duggat yéen a ko daa ànd te kenn mësul caa jiitu kenn mësul caa mën dama la daa tooñ sa waxtu ne fu ma la séen ngir xam sa dogu ak sa pëseef ak sa njàmbaar kon nag dañuy soññ daayir bi yëpp waa daara ji ñu gën a góorgóorlu rek fexe ba liggéey bii nga xam ne. suñu yaatu sumboon na ko ngeen ànd ko yéen ñëpp ba mu agsi fii liggéey bi na gën a bir biri di gën a jëm ci kaw di gën a yëkkatu ko di ëpp dogu di gën a am pëstéef ci jëm ci liggéey Sëriñ Tuubaa te xam ne kat moom de fam fam fam fam jëm ma nga noppalu ndax ku ko mas a xam ku ne xam ne ne waxtaan yi mu doon gën a mujj wax ak sëriñ bi maa ngi koy wax barki démb li ci ëpp jëmutuloon ci àdduna nañu nañu bu ñu sëñ bi fàtte ëllëg dégg naa ko ci moom mbokk Cheikh Mouhamadou Mountakha mi ñi fi nekkaloon Serigne Touba itam di Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ak Cheikh Sidi Mokhtar ku ci ne teew naa ba tàyyi mu wax la ko bu ma fàtte ëllëg moom kon xamoon naa ne mission bi jeex na te àdduna noonu rek la ñii day ñëw ne fi ba seen mission jeex ñu bàyyi ko ñee ndax kenn saxu fi kon nag na ngeen góorgóorlu bu baax a baax. sëriñ bi nag nee na mi ngi ci seen kanam ne seen ginnaaw ne ci seen rajo seen càmmoñ lépp lu ngeen nekk mu ànd ànd na ko yéen fas na yéen a gën leen a ndax loolu la façon ci seen digg moom naka jëkk waaye xam na ne nag la ak Cheikh Ibrahima Fall waxoon Cheikh Ibrahima Fall ne ko Ibrahima waneelu yoon ndax lëndëm gu gën a métti gi amoon kan mu am ndax ka daa gis ba gisatut googu la dem moo gën ki mës a gis kon yéen itam da ngeen nekkoon ak moom mu ne ci seen biir ngeen di ko wétali ko di wétali ko Sëñ Tuubaa ngeen dem ba jëmmam gisatu leen ko kon nag Sëñ Tuubaa ngeen di wétali ko Sëñ ngeen di wétali ko lépp lu ngeen fu ngeen mës a àgg rek dooleem ak kattanam moto tax da xam ne seen yëf fii ndénkaanlu Sëñ Tuubaa la ndénkaanlu Sëñ Tuubaa rek la Sëriñ Mbàkke bu sooxoon ndénkaan loo xam ne loxoom ak bëtam du ci yomb naa yomb naa tey kon positif bi xam na ni mi fi sëriñ bi xam na ko yaqinam itam am na ci am na ci yaakaar ci xam ne fa mu bëggoon a jëmi liggéey bi dara lu ci yàqu day gën a jëm kanam kon ñi ngi yamale foofu wax ji di ko ñaanal rek suñu borom gën a dolli ay leeram amiin amiin te lim fi bàyyi itam xolam di ci gën a sedd xelam di ci gën a dal te xam ne loolu rek moo ci am asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh maa ngi defe xanaa xanaa xanaa waaw xanaa ab taalibe sañ naa ñaanal sëriñam ab taalibe sañ naa ñaanal sëriñam kon kàddu gu may wax gudul ñaan sëñ mbas mi mu yàgg fi tawér rek moom lay wax ndax wax moom kenn na war a wax moom wax na ñun kon sañ nañoo ñaan mu yàgg fi tawér ginnaaw sëriñ bi daf koo doyloo kon képp koo xam ne sëriñ bi doy na la te sëriñ bee doyloo sëñ mii di ko liggéeyloo war sëñ bas mi war na laa kon doy kon dañ li sëriñ bi bëgg di la ko liggéey nga am ci lu kawe sa njor waaw loolu rek lañuy la wax ñun nag engagement muy jaayantewaat rek lañuy wax kenn mës ta gis ab néew ñu di ko sang ab néew ñu di ko sang mu naan na wëlbati ma walla tàmbaleel loxo bii wala tàngaleel loxo bee am néew day bàyyee boppam ki koy sang ñun ci loxo yi sëriñ bi noonu lañ fa yéene mel amuñu bëgg amuñu lu ñuy bañ amuñu lu ñuy ñoddi amuñu lu ñuy jeñ man ak mbooleem ñu nekk ci daara ji sëñ Atou li nu àndeek moom moom sosu ko waaye gaynde la ci woon jàmbaar la ci woon am na ci médaille bu ne mooy lan liggéeyal sëriñ bi te bañ a bëgg bañ a bañ féetale sa lépp sëriñ bi loolu nag Mbàkke kon moom ci lañ fas yéene wéy kàddu gu may wax gudul kàdduy sant la ak ñaanal la ni la sëriñ bi doyloo yàlla na ànd ak suñ borom gën la dëpp kàttan ba nga gën koo mën a liggéeyal ndax sagu yoon bi rek la ñor fu ne yaa ngi xool luy tax yoonu murit saa su ne ku ko gis xam ne liggéey bi sëriñ Tuubaa bi yemul ak dara dara waaw ndax sëriñ Tuubaa mi bind wax ne man na na annahu yakunu abada yurdihi billazi ka xidmati bada nafaytu zannahu bi andiyal xadim bi maa wanaa misli kullu xadim nee li mu liggéeyal yonent bi amul fi àdduna sosoo ba fii ñu yem ak li ne suñu kanam kenn ku mës a defal yonent bi ak ku ko nar a defal lu mel ni liggéey Sëñ Tuubaa bi du am kon yow lii nga bëgg te jàpp ko te dogu ci mooy dëgg wéy ci rek nu nuy sa ginnaaw ñun moom armee lañu boo xamante ne ñun ndigal rek ñu yëkkati ndigal rek moo ñu yëkkati armée lañu boo xamante ne kenn ku ne ci suñu biir koo xamante ne di nga doxee nen lu dul lan la sëriñ bi bëgg ak lan la sëriñ bi wax jiite liggéey bii nag lu yomb la ndax wax naa sëñ Muntaxa nee naa ko man de Mbàkke damaa dégg nga wax ne njabootu sëñ Tubaa gii ñii ma bokkal sëñ Tubaa ñëpp ay sangalaa laa leen def ma ne ko ah lenn de moom ma jaaxal mooy wóor na ma ne loolu nga wax mooy li dëgg ci yow waaye wóor na ma ne ñoom ñu nga def ay sang yow lañu yaakaar ginnaaw yow yaa ngi leen def sang ñoom ñu yaakaar la kon yaa ngi wan taalibe yëpp wan mooy lan moo yoon wi mooy lan kon ak taalibe ngay jàngale. kon nun man mii day nekk ci ñu ne maa nekk ci bopp Hizbut Tarqiyyah fu ma gestoo dinaa gis ñoo xam ne ku ci ne gis naa ci yow lu tax ma jàppoon ne maa war a topp sa ginnaaw waaye dogal bi jëw ñu ne man maa ko jiite jiite googu nag man jàppewuma ko ak pal ndigal dong laa ko jàppee ndax buñ ma laajoon du demee noonu. waaye ginnaaw sant nañ ma ko nangu naa ko ndax man maa jaayante woon ne luñ ma digal naa ko def luñ ma tere naa ko bàyyi waaye du ma weesu de maag yéen ñu ànd ci lenn lu sëñ bi wax daal dinañ ko def. duñ la war mukk. jërëjëf dana baax moom kay ni yoon bi daan doxee rek dara du soppiku lépp ci dal ak lu mu wax ñu jëfe ko ci dal ak sago. nit bu jëlee dara ni sama dund gépp laa koy def foofu mu defee ko sago bu fekkee dara nag bisu tey rek la koy def bu ko neexee mu xaatal xaatali mel ni bisub tey la koy def lii suñ dund gépp sëñ bi lañ nar a nekkal te amul guddi amul bëccëg amul suba amul ngoon yàlla nga fi yàgg te wér na ñëpp tàll seen loxo sëñ bi li may wax daal mooy ci turu ñi mel ni man ñëpp koy wax mooy fas nañ yéene sëñ Yuusu mii du ñu gën a gore ndax xam nañ ni mu ànd ak suñu aar fas nañ yéene ànd ak moom noonu mu toll waaye nag lépp suñ tubaab ku man dara rek moo tax nga ma ko. dëgg la te sëñ bi moom du fi jóg. jërëjëf. bi ñor na ko lool. ndax da koo fàggu. te dara mënu ko gàllankoor. dara mënu ko yàq. yéen nag ab ponk ngeen te moom mii de. xam naa ne wóor na ma ne suñu aata wutal ko doom yu mu jur loolu ma xam naa moom itam bët yi mu doon xool suñu aata mag yow ko noonu ndax xam naa bu fukki at waaye bëtu ni nit nit di nit di nit di àndeeg waajuram noonu ci biir ci biti loolu mën naa ci seere loo xam ne mënuñu si ko wax ci rajo amin amin